ñaan président Ousmane Sonko mooy loolu mu teg ko ci suuf te ñuy waxtaan ak moom war nañ ko war nañ ko ñaan mu teg ko ci suuf parce que loolu bu ko defee mooy dafay dafay toroxal assemblée bi te assemblée bi euh, ñëpp mën nañ ko toroxal ba mu def président Ousmane Sonko parce que assemblée daf ko xeexal ci lu bëri amul dara lu xew ci combat bi lu nekkul loi ñëw assemble nit ñi xeex nañ fa xeex ni ñu war a xeexee def guérilla parlementaire gendarmerie dugg ñu def recours ba yëpp am kon tey moom am na marge de pour pour ñoŋal assemblée bi man li ma doon xaar ci moom tey mu taxaw mu ne ah dégg naa assemblée bi bi ma fi nekkee ak ñi ma fi nekkal dañu assemblée bi budget bi jaarul yoon mais dama bëgg à partir de bés ñi ki tey poste questeur bi nañ ko jox opposition pour muy gën leer man damaa taxaw ne damay dooleel ñuy wax lancer d'alerte maanaam ñoo xam ne dañuy gis naka solul noonu ñu wax état bi damaa bëgg sénégalais yi fa ñu nekk mën créer ay commission d'enquête parlementaire donc man dinaa dooleel assemblée bi te dooleel boobu incha allah prochaine législative bi ñëw bëgg naa ngeen defar règlement intérieur bi bu ñu paree assise ci ci réforme institutionnelle yi yëpp ngeen boole ko pour que assemblée bi di ñëw am règlement bu bees pour que fonction parlementaire soppaliku fi ci Sénégal